est-ce que yow doon nga doon conseil Ousmane Sonko mu dem wuyu ji justice. honnêtement au plus profond. pour sincère je lui aurais conseillé d'y de déférer la convocation convocation. dina nekk projet bu éprouvant bu metti parce que ñun fekkee nañ projet Khalifa Sall. il faut un projet wante ne tu dois être solide sa famille solide say xarit solide. parce que ñun du benn. encore que bu Khalifa Sall euh, c'est pas un procès de mœurs. oui moo tax man la dina nekk procès bu éprouvant mais euh, bu ma xoolee fi ñu jaar ak Khalifa Sall ba tey jii ñuy wax possibilité Khalifa Sall bokkaat ñun bu ñu gëm a di woon yàlla bàyyi nañ Khalifa Sall bu yàgg. parce que ah non Khalifa Sall c'est fini non Khalifa Sall pare na ci yéen booy da ngeen di perdre seen temps grand bi gaare na leen yéen ñëpp topp ngeen grand bi ba gaare et mais ñu gëm yàlla rek xam ne fii am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla le meilleur juge le temps et que yëpp alaakulli àll dafay dafay passé. li may jàpp si Ousmane Sonko mooy que événement yi wàññiwu ko bayre wàññiwu ko doole c'est-à-dire que les Sénégalais ont choisi de ne pas le juger sur ça les Sénégalais ont dit à l'État que yii ngeen di wax jugé wuñ ci nit c'est pas important pour nous de savoir ce que a fait ou pas ñun Ousmane Sonko ce qu'on gère c'est son discours politique ce sont ses engagements politiques et s'ils font suñu jaaree fii pour éliminer ko wala pour def ko leneen je suis sûr et convaincu que le temps le rétablit. Mais en refusant de déférer la convocation, euh, est-ce qu'il ne s'affaiblit pas deux ans pendant lesquels il a crié Urbi Orbi et euh, mu ngi xaar procès et euh, qu'il est prêt qu'il n'a rien fait s'il n'a rien fait ñenn ñi dañ ñuy jàpp ne s'il n'a rien fait il doit aller euh, répondre à la justice. c'est très simple de le dire pour nous Maïmouna mais bu ñu xoolee appel bi yow yow. l'appel de Mame Mbaye l'appel de Mame Mbaye nga xamante ne on fait passer l'appel montre que lan la ñu bëgg a def mais comme je l'ai dit j'ai parlé à mon âme et conscience peut-être que su ma xalaat c'est plus mais mon option euh, euh, euh morale wala humaine moo jël le dessus sur une option politique mais ma conviction et que tout ceci finira un jour et que euh, ce projet-là affaire de quelques jours la c'est vrai que wax yi dina naqari c'est vrai que du neex a dégg mais man je préfère un un Ousmane Sonko dans toute son intégrité dans toute la verticalité de son discours sa puissance je préfère Ousmane Sonko debout la tête haute quel que soit ce que tu puisses me dire et de montrer aux gens ce qu'il a fait depuis boobu mooy que je sais passer au-delà des événements il a montré qu'il était résilient il n'a plus à le prouver il a montré qu'il est courageux il n'a plus à le prouver il a montré qu'il aime ce pays parce que patriotisme balaa muy am sens mooy nga wane la fierté d'être sénégalais tey bu Ousmane Sonko wootee doo gis euh, tendance biram Souleye wala wala waa kër kii wala soppee diw tu ne vois que le drapeau national et à perte de vue il a donné aux Sénégalais aux jeunes Sénégalais cet amour de ce drapeau la des moments qu'on a rarement vu même dans le sport et je pense que tout ça reste et restera je ne veux pas qu'il de rupture par rapport à tout cela je ne veux pas qu'il y ait des points de suspension li ma bëgg mooy qu'il y ait une continuité le même devant ses agrécateurs et je pense que c'est ça la puissance c'est ça la nit di la saaga comme keroog ni ñu ko defee procès Khalifa Sall lu mu déggal amul saa yi ñu ko woowee ci baar bi mu ñëw toog wax li muy wax fullaam ak faydam ñëw toog ba procès bi jeex ba bi ñu demee appel quand on cette fois-ci le juge là est venu pour pour l'humilier le juge qui est devenu le médiateur de la République qu'on n'entend jamais Demba Kandji Demba Kandji malgré tous les crises graves yi xam ci dëkk bi son intégrité c'est mu mujjee mais Macky Sall moo ñëw jaale ji Khalifa Sall kër yaayam seetul yaayu Khalifa Sall ba muy dund ba mu koy tëj c'est une leçon de de de vie Khalifa Sall mu ngi fi di jaale ji di dem ngénte di dem dëj di seete ay mbokkam garder la plénitude de sa dignité man li ma bëgg mooy Ousmane Sonko garder la plénitude de sa dignité